Al Madina Travel Salum Jidda SeneInfo International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bii di bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin alfatixi alxaatimi annaasiri alhaadi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim gannaaw bu ñu àndee ba jàng lanay sunna solo al madahibul arbaa ñuy wëgg a sóobu nag ci madhab bu nekk la mu jàngale ci njàpp ne mooy sunnaay njàpp walla yamu jàngale ci njàpp ne ñooy sunnaay njàpp ñu ànd ak yéen ci sunanul wudu wa fadaiduhu inda al malikiyati xam nga waa kër malik rahmatullahi alayh dañu tàqale woon sunna ak mandub ak fadail ñu ne sunna mooy lu aji yoonal ji sàkku te feddali ndigaleem ndigal ga feddali ndigal ga wala feddali ndigal la réyal dayoom feeñal ko ci mbooloo te dalil taxawut di wane ne lu war la aji defam ñu di ko fay yool ko aji baam desu ko duma ñu ne mën duub nag Euh, donte digale nañ ko waaye feddaliwuñ digal ga donte it aju def ja daañ ko yool aju bàyyi ja desu ko mbugal desu ko duma <clears throat> bu ñëwee ci njàpp nag ñoom ñu def sunnay njàpp juróom-ñaar am na ñu ko def juróom-ñett am na ñu ko def euh, juróom-ñeent waaye bu ñu dégloo al allaamatu bnu aashir rahmatullah alayhi daf ne sunanahu sabu bu tiddaa gasli yedee juróom ñaari yëf yiile ñuy sunnaay njàpp indal malikiyati bu njëkk bi mooy raxas ñaari loxo ba ci tikki njare yi ñaareel ba mooy gàllax ndiku ñetteel ba mooy sorax ndiku ñeenteel ba mooy fiiru juróomeel ba mooy delloo masxa bopp juróom benneel ba mooy masxa nopp juróom ñaareel ba mooy tooftale toftale farata yi boo demee ca alfiqhu kitaabul fiqhi ala almadahibi arbaati ca xaaj bu njëkk ba nag dana ci tudd juróom-ñetteel tudd ca juróom-ñeenteel moom dana tudd beesal ndox ngir masxa nopp ak yëngal jaaru boo xam ne ndox dana xàgg ca suufam waaye li tànn mooy di juróom-ñaar yile sunanuhu sabu ibtidaa xasli yadayn wa raddu masxi rasi masxu ludunayn madmadatu stinshaqun istinthaaru tartibu fardihi wa dhal muxtaaru njëkkee loxo ñaari loxo nga raxas leen balaa nga leen a tàbbal ci ndab li su fekkee ne ndab la lu ubbeeku ibnu qasim mu ne taabudi la ashhab nag nee eh, ak chet rek a tax mu àllaloon bi nadaafa bu fekkoon loolu mooy bu fekkoon ne ak cet am na eh, duñ koy yoonal selon ashhab ibnu qasim nag ne déedéet taabudi la moo xam set nga wala setuloo da nga koy def waaw boo demee ca ibnu arafa tey dana tudd rasu raddu masxir boole ko ci sunanul wudu mooy jógee ca gannaaw <coughs> ñëw ca kanam gannaaw boo masaaxee joge ca kanam dem ca ginnaaw masa biiri nopp ak biti nopp bu dee gàllaxndiku nag mooy ndox mi ngay xor ci sa biir gémmiñ ak yabli gi koy yabli bu dee sorox ndiku mooy ñoddi gi ngay ñoddi ndox mi ak ci ak sa bakkan fiiru mooy génne ga wa kawnu listinhaari bil ibhaami maa sababatin eh, eh, wa bil yasaari wa kawnu xaw ma ku ko waxati failuhu zeyni bi ala al anfi halaaha an daabin bi dooni xalfi loolu nañ ko fekk ca mandubatul wudu wa kawnu listizhaari bil ibhaami ma sababatin wa bil yasaari wa yada failuhu zeyni bi ala al anfi halaaha an daabin bi dooni xalfi aha gannaaw ga nag ñu jàng fukki ngëneel ak ñaar yi nga xam ne ñoom la maalikiyatu yi limal euh, ngëneel yi njàpp euh, selon sayyiduna ibnu ashir wa ahad ashar alfadailu ëtët tasmiyatun wa buqaatun qad tahurat taqlilu main wa tayaamunu lina walchafu waltasliisu fi magsulina bad ulmayamini siwaakun wa nudib tartibu masnunihi aw maa ma yajib wa badu masxi rasi min muqaddami taxliluhu asaabian bi qadami mu ne ngënee li njàpp fukk ak benn la bu njëkk ba amu ne attismiyatu mooy wax bismillah ñaareel ba mooy jàpp ci barab boo xam ne bu laab la ñetteel ba néewal ndox mi néewal ndox nag amul dayo ku nekk Euh, fa sa mën-mën toll ci néewal ci mën a néewal ndox waaye danañ ko dayool ci aada ak tamit ci bindu nit ki <clears throat> tayamunul ina mooy ndab li ngay jàppe nekk ci sa ndeyjoor waaye loolu dafay fekk ndab la ubbeeku de su dee ndab lu tëju moom mën naa bañ a nekk sa ndeyjoor ndax mën naa am doo ko jekku juróomeel ba ci yi ñu sopp te mooy ngëneeli njàpp mu ne raxasug ñaareel ak raxasuk ñetteel maanaa boo raxasee benn yoon sa kanam def nga farata bu matee ñaareel ba ak ñetteel ba ngëneel la eh, ibnu ashir na dafa mel ni ñaareel ba ak ñetteel yëpp benn ngëneel la leen def wante ca eh, góor ga ibnu naj na bu nekk ci ñoom ñaar ngëneelu boppam la kullu waxidatin fadilatun mustaqilla waaye lii nag eh, ibnu ibnu ashir wax dafa mel ni moo gën a eh, moo moo moo siiw ca eh, téere at tawdix juróom-benneel ba mooy njëkkee ndeyjoor yi njëkk càmmooñ yi boo dee raxas loxo nga njëkkee ndeyjoor teg ci càmmooñ boo dee raxas tànk nga njëkkee ndeyjoor teg ca càmmooñ dul badul mayaami ni siwaakun jëfandikoo soccu siwaak mooy aala bi ñuy mooy aw bi ñuy jëfandikoo waaye istiyaak la bëgg a wax rek soccu nde boo amul bant boo soccoo mën ngaa soccoo baaraam boo amul bant boo soccoo aha mhm. juróom-ñetteel ba tartibu sunani tartibu masnunihi aw maama yajib mooy sunna nga toftale leen sunna yi nga xam ne ñoom rek a ànd wala sunna yi nga xam ne dañoo ànd ak farata nga toftale leen ak farata yee ñu àndal maanaam nga njëkkee raxas sa ñaari loxo balaa nga gallax ndiku gallax ndiku balaa ngaa sorox ndiku mhm. bu dee yi ànd euh, farata boo it daf ko lim muy beneen man mandub mooy tartibu sunani ma al wajibat waaw boo galax ndikoo soog a sorox ndiku soog a fiiru soog a euh, raxas sa kanam dégg nga balaa ngaa raxas sa euh, tànk fekk <coughs> am na sunna yu jiitu boo raxasee kanam ba pare raxas loxo masa bopp balaa nga raxas sa tànk nga masa sa nopp mooy aw maama yajib bu fukkeel ba boo dee masa sa bopp nga njëkkee ci sa jë jëm ci sa ndong waaye bul njëkkee ci ndong gi jëm ci jëli jëwi nde boo ndakkee woon ci ndong jëm ci jëwi mu mu wér nag waaye def nga lu ñu euh, lu ñu lu ñu lu ñu sib ndax gënut wa man bada bi fawdi aw qafaahu ajzaahu lakin bisa ma ataahu wala mu ne eh, ku ku ku ku ku jëkkee ca ndongam la ca njañal boppam njubbal boppam daldi di wàcc ci jëbi def na doy na de ku njëkkee ci njoñam ci ndo ndongam wàcc ci jëbi doy na de waaye la mu def ñaaw na min ajliha in kaana aaliman uzin wa ullima alxukmu wa ullima alxukma ida kaana jahil mu ne bu fekkee borom xam-xam ko def ñu yedd ko bu dee ku réer la ñu ne ko hey du nii nii la fukkeel beeg benn bi mu ne taxliilu asaabii rijlayni taxliiluhu asaabian bi qadame xalil baaraami tànk yi dafa bokk tamit ci fadailu lwudu inda al aimma almalikiya assaada rahmatullahi tabaraka wa alayhim ajmain kon nag ci gàttal juróom ñaar le ñooy sunnaay njàpp ci ngiru imam malik raxas ñaari loxo ba ci tikki njare yi gàllax ndiku sorox ndiku fiiru delloo masa bopp masa ñaari nopp toftole farata yi yi ak benn ñooy fadail wala mandubaat wala mustahabatul wudu moo di wax bismillah yi ci tàmbale bi jëfandikoo pàkk boo xam ne dafa laab neewal ndox ndey ndab li ngay jàppee ndem dafa tijjeeku ñaareelu raxas ak ñetteelu raxas tàmbale ndeyjoor balaa ngaa raxas càmmoñ soccu toftale sunna yi ñoom kot wala bu ñu waree ànd aki farata nga toftale leen ñook farata yi boo dee masaa sa bopp nga tàmbalee ci njëy jëm ca ndonga xalil sa baaraami tànk yii ñooy fadailul wudu yi ñu ngi ñaan yàlla jàppandal ñu dégg jàppandalal ñu jàppandal ñu topp te baaxalal ñu suñu mbir ci zahir ak ci baatin ñu ngi gërëm mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp yëpp moo xam ci euh, chaîne